lépp loo gis lu nekk rek mbir yàlla la yàlla moo leen teg loolu kon lu leen dama naa doomu aadama loo yàlla teg lu nekk rek war nga ka nangu nga xam ne lii yàlla moo ma doomu aadama tegu man loolu laay dund man lii damay xam ne yàlla moo ma ko teg damay dem sama yoon du ma teree def dara lu ma bëgg a def dama koy def waaw dama bu ma génnee rek gars yi danañ ma tooñ wante du leen faale ndax ku leen faale doo dem. fekkee bëgg nga dara ku leen faale ku leen ku fa waroo leen a faale ndax kon dañ lay tàddee lu bëri sa lépp day tàddee ndax saa neex daanaa dem këram avant may commencé ci théâtre bi daanaa dem këram boobu mi ngi nekk inte ma daa dem dem naa fa ñaari yoon ku ñuy wax Ndeye Penda Thiam rek moo si gën a jàpp su ma demee ba gën a xamante relation saa neex Ndeye Penda Thiam moo tax ma gën kaa jàpp après si la ma ndey ndey Penda woo ma téléphone ci koor gi ndax dina um koor trois jours ma ñëw Dakar ci Sanex Samb groupe Soleil Levant ma ñëw rek waa dëgg yàlla macha allah ba ma ñëwee gars yi tamit yaata na ma ndax ñoom ba ma ñëw man tuur busa bi sax ban ma koy wax sax damaa jaaxle woon ndax damay ñëw classe si Mbour gi ñëpp ku ñëw na ma busa busa ndax te Sanex joxe na foofu sama tur ba pare avant may ñëw ah foofu macha allah neex na torop amu fa benn problème daa mel ne damaa nekkook ñoom ay at ñu teg sama place respecté ma tamit maa ngi gërëm Sanekh Samb bu baax gërëm naa ko di koy ziara moom ma soxnaam soosu na Sanekh lépp coolu coolu moom la ndax tey ji bu ko nekkoon duma boole solo la bu may dawloo du may dawloo guddee bëccëg ndax përi na fi am ñoo xam ne danga leen soxna ñu lay dawloo te Sanekh dafa loolu heure bu ma neex laay dem këram heure bu ma yëkkatee tal sama téléphone wook mu wuyu ma te mënoon na ko faa mën a fekk mu changé numéro wala leneen waaw gërëm naa ko ba lu bëri bëri bëri ndax lépp li ma def émission yi may def yëpp balaa maa jaar balaa nga maa wax moom laay njëkk a waxee ba pare ah. doogu ñëw tant que moom bu ne ma bul dem du ma dem bu ne ma demal damay dem